Bouga Bio di des de faj bépp feebar yu estomac hémorroïde hépatite di 77 536 83 85 ak Ben Malik, di venant de Dubaï numéro di 77 310 72 31 ñoo leen de de seen émission aleykum ci yéen xitaalu rey léegi ku bañ ne yàlla du dëgg mbaa ñu rey léegi maa na bi na na ngeen xeexi xam naa ne wa xeex service xeex kur um, lu sibu ci seen bakkan la làkkum ñeel leen coono ba sa nekk deegu tooy gaa tax na bakkan yi bëgg ko man mi ko santaane xam naa li tax de waxee am takaraxoo amaana ngeen bañ say en def luñ leen sant te wow wala ngeen bañ xayrun moo gën làkkum ñeel leen wala xayrun aw yiw la làkkum ñeel leen waaye say en to yi boo amaana ngeen bëgg say en lëf te mooy bañ a xeexi toog ci kër gi woowu loola ngeen bëgg sarun aw ay la làkkum ñeel leen wala sarwoon aye nga làkkum ñeel leen ndax benn yëf a ngi ci boo xeexee duma jël la kooko amoon xooma ngi ci ginnaaw koom gi it wegee la ngi ci ginnaaw yooyu ñaar ñu rëy la nga tàbbi àjjana texee ngi soo toogee nag ñu not la gàcceel la fab say doom def koy jaam jël sa yàlla lakkal walaaw yàlla mi digle lu baax yaxlamu xam na lu baax wa antum yéen la taxlamuuna xamu leen lii ñëw ëllëg Hanzala mi Abdullah ibn Jahshin soxna Atikatu ko jur loo ne bàjjani nabi la yaayam ak rasulullahi yaayam ak bàyyi nabi bokk ndey ak bàyyi moo jur Seynabu bintu Jahsin jigéenam la ak ku ñu wax hëm na appartement bi nabi jëkk def lu moom la yebal mu dobala ji ibnu xadar mi mu ko yebal nag ci mujj fan yi mujj ci weer wu ñuy wax maam ji koor xam ne baraxloo ci war a tegu te baraxlu kenn du ci xeex ñu départ le vingt-huit vingt-neuf ñu dogal a gaa yi attaqué leen ci timis duma leen nangu aleel ji weer wi feeñ yéefar yi nag ne ne trahir ne parce que dafa noonu ne bu ñu xeex lasarul urumi te lasarul urum ñeent la moo di rajab ak saabaan nabi daan na wax ne ñeenti weer yooyu ñett ñi salaasatun sardan wa waa'idatun fardan mu ngi dee xeex ci rajab sawaala fil iqdati ak fil ijja keroog bi ñu xeex daal ba jant bi sa ñuy àggale xeex bi la weer bi feeñ ñu daal di ci reproché na bi nag ne deful dëgg alors seet ay kilifa ne ko nañ dem na ngeen dem questionné ko lu tax gaayam di def attaquement ci weer bii nga xam ne moom la ñu tere ci xeex te weer bi feeñ ne bi yàlla daal di ko wax nag ne ko ñu ngi ñëw ñu ngooguy ñëw li leen li leen tax a ñëw nag lëf la lëf loolu nag laay ci tontu liñ ciy laaj bisimilahi amul genn werante ak seen wilaaya ak seen xam-xam ñetti yëf la yu bokk yu jege ñett benn bokk ci morom di nga nekk shirif te doo nekk aalim di nga nekk aalim te doo nekk shirif di nga nekk aalim nekk shirif te doo nekk wëli di nga nekk wëli te doo nekk shirif doo nekk aam waaye dàmbale yëpp yëpp dafa néew ñu am te ñoom am na ci seen kër bisimilah. gaa yaa ngoogu ñëw di laaj si laajub diingat ndax ñi ngi xeex ci fan yi mujj ci jamaadil axira ñu ne nag tàbbi na ci rajab ñu ci bàqat toujours waskurullah kooku sa doom ngi dale ci juróom-ñetti góor ba fukk ñaar na beñ leen yebaloon fu ñuy wax nax la ci wetu taayif la ñu tëru fa gaa yi nag ñu indil leen ne dina dinañu romb ginnaaw ëllëg ci ngoon mu songa leen attaqué xeex ak ñoom fekk gaay bi ñëwee arbaatu rijaal lañu juróom ñeent rek lañu woon mu rëy ca ñeent juróom-ñett la mu rëy ñeent jàpp ñaar kenn daw mu giisal aleel yëpp nag yëpp ko ne bi mu ngi ame nag ci bés bi mujj ci jamaadul àqar affaire boobu am na lu jiitu badar ñaari weer moom la ko wax nag ne yëf aloona ka بغنل الله أم سهر الأرامي شويرو ونيو أرمل ونيو وخ رجب لن لتلات قتال قيخ فيه شويرو وبدل استمال يسألونك أن القتال دين الله شخيخ شويرو أرام ويرو ونيو أرمل كشخيخ لقوار قلنا لك نقول بان نقول دواي قتال قيخ فيه شويرو ويالا أرمال kabirun bàkkaar bu màgg la waaye am na lu ko gën a màgg kat yéen a may diingat ngir xeex ci d'accord naa xitaalun fii kabirun amul benn werante waaye kat wa sëddun tere nit ñi an sabilillahi ci diine yàlla ji wa kufrun ak wet bi ci yàlla wal masjidi ak tere nit ñi jàkk ja araami ja ñuy wax màkk wa ixraaju ahli ak génne ñi fa juddoo te tooñu ñu leen miin u ca dëkk ba akbaru moo ëpp bàkkaar fuuf indal lay fas yàlla <laughs> benn motif la leen lañ doon kole si waaye yowul booye boo nettee leen ñeenti motif yi ñu def waaw dëgg la xeex sërul aram dëgg la bàkkaar la bàkkaar la waaye daal ñeenti yëf yi ngeen def saddun an sabilillahi tere nit ñi diine yàlla yemu leen ci wa kufrun ak weddi bi ci yàlla yemu leen ci wa saddun an masjidil araami ak tere jàkkay kaaba ga yemu leen ci wa ixraaju awli ak génnee ñi fa juddoo woon te Moustapha ci la Ababakar yooyu ñeenti fe akbaru moo gën a rëy bàkkaar indalaay fas yàlla wal fitnatu bokkaale wal fitnatu kéefër akbaru moo ëpp fuuf moo ëpp muti fuuf minal xatli ci xeex ci weer wu ñu tere xeex noonu walla yasaaloona duñu dañ mukk ñoom yéefar yooyu duñu tekki seen njàmba de yuqaatiloona kum di xeex ak yéen yéen jullit yi duñu bàyyi duñu bàyyi ba kañ ata atta yuruddukum ba ñu rekkile leen rekkile leen ar yéen an diinakum jëme leen ci seen diine yi fokk ñu bàyyiloo leen lislaam delloo leen ci kéefa loolu loye leen di tax a xeex ñu ne faw mu ne ah boo déggee ma ko kat in istata'un ndéem mën nañu ko ndéem mën nañ ko de moom la jiim waaye maa ngi wax ak yéen yéen de na leen wóor na de wa man yartadit képp koo xam ne murtat na minkum ci yéen an diinihi bàyyi lislaam bii mu duggoon ba noppi ngir ragal jaasi mbaa ngir ragal ku ko rey fa yëmmut mu dee ci kéefar te woowoo moom keroog ba muy dee kaafirun mu di bi yéefar kooku kenn mun la tere mu duuma ko fa wulaayka gaa yooyu abi tab yàqu na amaaloo jëf ji yiw ja ñu defoon bañ dee julit fi duniyaa ci àddina wala axirata ak alaxira wulaayka ñooñu sax sax sax azaabu naari ñooy gaa yi jaanama xaaliduuna way sax la ñu ci jaanama ragal jaasi ko allazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu nabi ca mag muy taxu ñu ànd ak moom wala sina aajaru ñu ànd ak moom taxu dem medinatul munawwara mu takka di xeexi ñu takkaat def nañu ñetti affaire gëm nañu yàlla taxu ànd ak nabi toog medina xeex jot ñu takkaat génn medina fii ngir yëkkati baatu yàlla ak koyal ko ulaayka gaa yooyu yarjoona yaakaar nañu rahmatullahi tayib yàlla wala borom bi xafoorun jéggalaa kum jullit ñi rëy mun ji di yërëmaa la laaj ci waat laaj boobule Abdurahmaan ibn Awf wax nañ ne moo ko defoon alquran ñeenti yoon la tudd sàngara benn baa ngi nëli ñaar ña benn baa fii benn baa ci saar wala ñuy jëm bii nag fekk na boobu sàngara araamul ah, saa'ilu Omar ibnu Xattaab na ne ñu Omar ko laajoon wa Maasun ibnu Jabal wa jamaatu min as-saabati Omar moom ku bëggoon sàngara la daan na naan waaye si Abi Bakr musula naan sàngara lu jiitu mu tuubit dafa yiwa daawul naan mës naa toog ak nabi di waxtaan ak saaba yépp mu ne yàlla dimbale na ma musuma naan sàngara musuma sujootal xërëm Omar dal di jóg taxaw ne eey ëppal ngeen bàyyi leen bu ngeen gisee waa ji lu ne ngeen di ko wax kenn mënu fee mucc ci loolu xam nga moom daf ko def xam daf ko def te waa ji wax loolu ci amul kenn ku fi nekk mën a wax ne su jotuloo xërëm mbaa naanu la sàngara yow mii di wax sa papa président la woon ci place sàngam yor xërëm yi Ababacar Diop ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne sama gémmiñ gii sàngara mosu cee dem sama jib yi mosula si xërëm sama bàyyi téye na ma ci loxo ba dem ci pantre yi xërëmam yi nekk mu ubbi ko dugal ma ci ne ci biti xërëm bi koo koy sama yaakaar ne ma doom gapparikul gapparikul àgg suuf mu ñaanal la tëj bunt bi ne man maa ko wax ne ko a a maa ko wax ne ko na nga tudd wuyuwuma ma wax ko na sant wuyuwuma ma ne ko ah xeer wi maa ko yëkkati sa kaw laa ko jëme wuyuwuma mu yëkkati xeer wi dóor ko ko ci bopp mu ne kalang lang lang lang ba suma bàyyi bunt bi ne lu xew ma ne ko këf cii day nga naan mosu jootal laa ko laaj ne mu tudd wuyuwuma ma laaj ko bàyyi wuyuwuma bi ma ko las dul naa ko ko moytuwul dawul ma dóor ko ko mu daanu eh, eh, ma dal téye ci loxoom nag jiital ko ba dem da ca yaayam ne ko gis xale bi le xam nga nit ko wax dañuy fonk seen jabar bëgguñoo duma seen doom ngir seen jabar xale bu dëgër ba ko dee nuy ni l'affaire mu ne bàyyi ko kii daal mooy kii ma doon ooye mu ne ko kuñ la doon ooye mu ne ko guddi gi ma nekk ciw mat am na ko wax ci asamaan yi juróom-ñaar na ma wottul te sukke ndeyjoor yaa ngi indi àndandoo Moustapha ki nga xam ne ñu ngi ko tudde sëddix ci suuf tudde ko atix ci asamaan yi juróom-ñaar mooy ki leen di soog a téye ëllëg yaakaar naa ne mooy xale bi foofu jibril na safeet na cëpp nabi ne nabi Ababakar wax na dëgg yàlla ne Ababakar wax na dëgg yàlla ne Ababakar wax na dëgg door a naa waa dem. keroog lañ ko tudde sëddix Ababakar sëddix ñu ne sàngara daal ni muy def te ci yàlla waxulee dara yi baaxul warul a baax ndax dina yóbbu xaalis kon dafa yàq économe dina wàññi marte ba nit dina ko tax a def loo xam ne bu xiqee ruus ginnaaw loolu dafay yàq xel kon nañu wax fekk alxuraan ni ma la ko waxe woon rek dafa mën a propagande bi lislaam di ñëw am na yu mu toloore yu baaxul xam na bu ko teelee aaye affaire bi du dox mu bàyyi leen ñuy naan sàngara di naan sàngara di julli ba aaye bi wàcc aaye bi bi mu wàccee gaa ne lii kat leer na ñii ne lii leerul ñi ñenn ñi continuer naan ñenn ñi bañ bàyyi aaye bu njëkk baa ngi yàlla daf ko ne yasalunaka dinañ la laaj anil xamri ci sàngara ndax daganaam daganul wa may siri ak carte carte daganaam daganul bu boobaa ne leen dëgg-dëgg fiihimaa nekk na ci jëfandiku sàngara ak carte ismun bàkkaar kabiirun bu réeréeré tontu lu jëkk loolu doy na waaye nag am na manaafiyu aslëf ci njariñ li naa si ñeel nit ñi xam nga kii ku am xel xam ne kii wax ak yow dafa am teggin waaye tere na la ndax tax mu tere la mooy ismun ismun jooju ma wax daf ko defal siifa kabirun am na bàkkaar bu rëy a rëy premièrement jëkk gi mu ko jëkk jukki jëkkula jëkkula tudda njariñ te arab buy wax ñaari wax yu toftale ba gën a yittewu lay jëkki kon is bàkkaar bi la gën a yittewu ba noppi mu melal ka nag ne bu màgg ne nag am na manaafi naam li si neel nit ñi njariñ li nag moo di am ko parce que doo sonn ak ci léegi toog dal di joxe cinq mille ñu baatare nga këpp wëlbati am aas am cent mille te du doon sax ak surni doo enu saaku doo yëg doo yëg nañ koy ki ngi yëg di tabax doo jotee yëg safo doo béy mennam làndang yow mu am xaalis boobu loo tax sax ñu tëddee ko may jur may jur mooy firi tey siiru wu zooli loo am ci lu yomb jonkal léegi rek ñu baatare nga joxe cinq mille wëlbati aas daal di am cent mille francs loolu moo di manaafion bi sàngara siit li ciy manaafion mooy tex texi gi muy def boo koy door a sex ci put mi moo tax yàlla tuutal ko wa manaafion ak as lëf ci njëriñ li naa si ne nit mu mu nag yëkkatiwaat waaye nag wa ismahuma seen moo ëpp fuuf min nafihima ci seen ci gaa yi ne eh, yàlla nee na daal am na njëriñ man damay naan fekk ñu bëgg ko yonent bi nag ñu bàyyi di naan ba am bés am ku baax ku invité ana nañu Abdourahmane ibn Awf la ñu daje fa lekk ba noppi naan birëm def invitation si ñu fekk leen fa ñu man wax nañu sax ne siina ali karamallahu wajhahu moo jiite keroog waaye fekk mu man mu jàng alquran yàq ci mu jàng saar wu ne qul yaa asaf laa yëpp bañ a wax laa mu wax qul yaa ayyuha alkaafiruuna a'budu maa ta'buduuna وأنتم آبدون ما أعبد وأنا آبد ما عبدتم وأنتم آبدون ما أعبد sun borom daal di wàcc rek aaya ne nag lii musiba la daal di wax yaa ayyuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum suqaaree ataa taalamu ma taxulu bu leen ji julleeti te mandi ku ci mandee te xaaral ba sa mandi sa dañ nga julli kon mel na ni sàngara dagan na ñuy naan balaa géeye mandi te ginnaaw ñu di ko doxal di ko doxal ba am benn bés keneen invité ñu daje ca naan guddi la nag man bi xeex ba am ku fab yaxub gëléem kaan ma jooy ko moroom nekk xaañ ko deret ji tuur deret jooju nag tiital Omar mu ñëw nag ci yonent bi ne ko waxal yàlla mu leeralan lu sàng ne lu gi ëpp lii mënu la dagan lii nga xam ne day dugal sunu diggante looneel di yóbbu sunuy koppar di yàq sunum xel wala اللهم فضيل لنا بيانا سافيا في القبر سنبون دور وجه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه wal bax daa ah, ah, yàlla lim leen boole leen ñoom ñett sàngara carte ak li ñu mën a tudde gisaane gisaane mooy azlam ay bant yu daan liggéey la di ko denc ci kaaba ga kii gàddu jàkk ji di ko yor booy voyagé ñëw jox ko dara mu yëngalal la génnee la am ci ñu bind digal nañ ma am yu ñu bind tere nañ ma am yu ñu neenal binduñ ca dara boo jotee ci bantu digal nañ ma dem ma ngay takk dewr maa ngay voyage nga dem soo yemee ci digal ma nga toog soo yemee ci bu deful dara ñu yëngalaatal la nga dugalaat ko ci yooyu ñett la yàlla tereendoo mu araamandoo waaye bii jamono fii ñu toll booba araam ji wàccagul moo tax mu ne ko dinañ la ko laaj qul nag neel fii ma wa manafiu linnaas wa min nafihima duma ay maa ngi dee nag moo ko teg wa yasalunaka laaj si ma fa yunfiquuna lu day nan war a lu day laata yunfiquuna lan la ñu war a saraxe ban façon moo passé bii nag lu day naan xuli nee li gën sarax daal ak alxafwa loo mën a fàtte loo mën a fàtte gën ci saraxe de waaye lëf ren ba déwén léeg-léeg nga na ah laay keroog bu ma kii ma këfi noonu daal kii kooku baaxul ci sarax kéere yi sax nee nañu tabaski sax parce que sax li ci gën njëg gi feeg déwén sa soxla du metti ba sa xel dem ci waaye bu fekkee ne feeg déwén soxla mën na laa dal su tax sa xel dem ca koppar yooyu nga jëndee woon xarma te parce que wàcc na la. kasaalika nii ma leen leerale li ngeen laaj yu bayinu la leerale laaw yàlla lakum ñe leen laayaati kéemaanam la allakum ngir yéen tattaquuna ngeen ragal yàlla fi duniya ci àddina wala axira ak alaxira wa yasalunaka dinañ la laaj ci anil yataami ci nañuy denc xaalisi jirim xul ne leen islaawun ber yëfam ber seen yëf xayrul moo gën de tegal ko fële kontam téye fii sa compte def fële keesam def fii sa kees moo gën waaye nag wa in tuxaalituuhum boo mélangé koppare xale bi ak sa koppare bopp aayul fa ixwaanakum dañuy mujj di société dañuy mujj di mbokk mbokk mbokk ak aleel mooy société walaaw yàlla yàlla mu xam na al mufsida kay siif aleeli jirim xam na it minal muslihi ka kay sakkantal ba mu sakkan maa ngi nii yolomal leen law saa ah bu neexoon laaw yàlla la anatakum mu tiisal leen mu tiisalal leen ni bu kenn jaxase sa aleel ak aleeli jirim da koy ber waaye maa ngi nii ubbi leen yoon la na ngeen leen jaxase te it defuk njub ina laa naka yàlla asisun ku néew asisun ku kenn mënu la nosanteeg moom ku mu nosalteel not la ak kii mun kuy dogalit lu ko neex la ci mbiri jaam yi buñ la joxee masalan cinq cent yoo xam ne bàyyam dafa dee xale ba ji nasuuragul ñu óolu la dénk la ko fabal kees daaj ko ci bind turam ci kaw di ca jël kemp tàllaay lu mu war a sol ak lu mu war a dundi la mu war sol ak la mu war a dundi da nga koy nisir ci réew mi ña fa seeni bàyyi gënu néew doole ëpp ñu fa doole ngay yem nga fab seen taw su fekkee nag amula dara yoon ne la mën nga cee lekk mën ngaa lekk ci xaalis yi xale ba waaw kay ñëwoon fii biram ak un million yow amula cinquante te yow lañ ko dénk yoon ne na mën nga cee lekk mën nga cee def commerce soo perte yaa koy fay soo bénéfice jël bénéfice bi delloo ko capitalam lekk gi nag na tolloog ak coono bi ci xale bi coono bi nga koy jubbanti di ko tette booy jël nga jël lu day noonu bàkkaar du ci nekk yàlla nag ne su ma neexoon ma ne bu leen ko laal walaw saa su sooboon laa yàlla laanataku mu tiisalal leen bañ leen a may benn priorité ak benn facilité ngeen jëfandiku ci dina laa asisun ak in wala tankihoo bu leen may kilifa laay waxal kilifa yu bu leen may seen doom musrikaatin wala tankihu bu leen denc bokk bu leen takk maa ngi wax ak far yi xaleelu góor yi jëkkër yi rikkawaay benn jëkkër julit bu mu takk musrikaati yéefar bu jigéen bul nangu de lu ngoro gi tooy tooy bul nangu alxayri ji bakkañ atayum na bel bés mu ne ashadu laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul maa ngi leen di xamal ne wala amatun jaam bu jigéen moominatun bu gëm boromam xayru moo gën fuuf min musrikatin ci gellawar goo xam ne yéefar la kon danga naan wala jaam bu ñuul gàtt ñaaw ñàkk waaye moominatun mu dib julit xayru moo gën fuuf min musrikatin ci gellawar goo xam ne rafet na bare aleel tërëb yéefar wala wax jabatkum donte juddu baag taar ba yéem na la it takki yéefar ko takki takki jaama ko gën loolu jëkkër yi la ñu wax léegi ñu ci bàyyi wala tanke hoo yéen bàyyi bu leen may seen doom yi jigéen yi musirik seen yéefar yu góor yi mukk mukk ataa yoomi noo belbati ñoo xe laa ilaha illallah maa ngi leen di xamal ne wala abdun jaam bu dib jullit ñuul gàtt ñaaw ñàkk aleel waaye fekk muminun aji gëm la xayru moo gën fuuf min musrikin ci riisaas boo xam ne gellawar la te di bi yëfar wala waajabakum doonte taar baak aleel jët yéem na leen bu leen ko def ku lay ki ñii leen tere ñoom yedda oona dañuy xiir ku ñu àndal jëf joo xam ne ila naari da leen di tàbbal safara wallaahu yàlla jullit ji nag yedda oon dañuy oo ñu ñu àndal ci lammi yonent yi ilal jannati jëm ci jëf ju jëm àjjana wa mafrit ak mbàgg wa mafrit ak ngéggal bi isni ci ndigal yàlla yu bayinu am def leen loolu wuyu bayinu dina leeral teel yàlla ayaati ay santaaneem dinaa si neel nit ñi laal lahum ngir ñoom yëpp a sàkkaroon ñu waam كذب ويسألون كذب الله في أن المعيد فريغل جيجن جيجي فريغل يهوتي دني وخوني من لتي ذكر عندك موم خنلين حقن هو ريغل عشاء صوتلا صدلا fattasiloo loo ngeen beru yéen jëkkër ñi nisaa seeni jabar yi di ci seen heure réegal wala taqarabuna bu leen tudd ñoom mukk mukk ci leegal réegal boobu atayat xur na del bete réegal ba doge ñu sangu fay sa tataar na ndeem leegal réegal ba dog nañu sangu kon faatoohun na mën ngeen leen a dikkale waaye bu ngeen di ñoom it jagal tene ci asamaan وما في الارض اللي تي كو سوف لب لب لو ام خلق لو ام خل مولين موم ليك نا نعم مو باي ما ام توي من لو من في سماواتي ومن في الارض سنه من رك دا ngay xam nak ne bobo mam yalla djublo tun quantité bobo qualité lu djublu bune manak djublu wul qualité quantité le ndax maa ci arab istibham la boo xam ne borom day am xel man nag bu la ko arab waxee borom xel rek la lu am xel rek lay wax man kon bu ne loo ñeel na yàlla man fi samaawaati ñi am xel ci asamaan kon biddiw yi day génn weer bi day génn taw bi day génn dënd yu génn bu ne loo man fi lar bi yàlla moom ñi am xel ci kaw suuf kon mbaam bokkul fas bokkul gëléem bokkul garab yi bokkul waaye bu nee maa fi samaawaati wa maa fi ardi ñëpp a dugg gëléem dugg na fas dugg na xar dugg na mbaam dugg na bu nee maa samaawaati bidéew yi dugg na jant bi dugg na malaaka yi dugg na mais bu am ko ayee man rek ku amul xel bokk la booba jamono bëggul bari wóoloo yi la jukki tudd boo nag bu yàlla nee loo man fi samaawaati maa moom ñi am xel ci kaw suuf lu soxlaatu nag mu di ci boole ñi amul xel ndax ñi amul xel ñi am xele leen maam soo nee maam moom borom fas wi kon fas wi mutu la waxaale yaa moomaale fas wi dënam borom na ne ñeel na ko li ci asamaan yëpp ak li ci suuf yëpp moo leen moom xalxan wa abida man sa lësi amul kenn koo xam ne yas fa mën naa tiinuwaan tigawaan bu jëriñ indoo fus yàlla illaa bi idnihi ndare ndigalal yàlla ñeel kooka moo naan kooka boo boo boo tinuwaani ma tiil yàlla mu xam ne moom yàlla maa bayna ay diihim wa maa xalfahum xam na seen mbiri àddina xam na seen mbiri alaxira yépp wala yoxibuna mënuñoo këf min ilmihi ci xami yàlla bi sëy ci lu mu néew néew néew néew mënu laa kof mënu laa mënu laa for dara ci xam yàlla yi lu mu néew néew ilaa bi ma shaa ndaree la ko nga xam ko mu xamal la ko aussi ah gën naa yaa fuuf kursi yu kursi yoom nga samawaati asamaani juróom-ñaar wa arda ak suufi juróom-ñaar samawaati yooyu ñu kasara dañ ko war a nasa ngir mafoon la waaye lu mu nëbb ñaari xatifam googu ku koy feeñalal sama waa ti sama waa tuug mën na nekk waaye sama waa ta mënu la nekk ndax jëm mu ënn si saalim la ñoom kasara la ñuy nasabe waaye toujours nag buñ ci atifalee baat fa baat ba maas rek ba mu jëf la wala naas moo tax mu wax waa arba ak sofi juróom-ñaar wala yu uddoo li muy diis diis taxu mu faale irsuhuma seen ak wattu waxuma moom buur bi al aliyu mooy aji nat mbindeef yépp al azimi mooy aji màgg jeeg ci lu duuri fab ay ji dafa doy waar de defe naa daal lii borom sarxa bi wax ne mooy usulu ummaati masaili tawhid dëgg la tur yàlla yu bëri ay boobu de <coughs> daf ci am yoo xam ne ismu sayi la ak yoo xam ne mul marba ak yoo xam ne mbob xam la boo ko jàngoon nga jàng laa ilaha illa huwa yàlla la dinoonu illaa huwa yàlla la alxayu yàlla la alqayumu yàlla la ñeenti turango li huwa yàlla la aliyu yàlla la xasimu yàlla la juróom benn tur ngay gis ci saa yi mais fukki tur ak juróom benn ci nekk ndax laa ilaha illa hu laawu yàlla la illaa hu dara yàlla yàlla la alxayu yàlla la alqayum yàlla laa tàqusuhu alsaxeer boobu yàlla la alsaxeeru laa tàqusuhu jooju yàlla la sunnatun wala numun lahu alsaxeeru lahu jooju yàlla la ما بين ايديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه اسخر يالا الا بما شاءه يالا وسع كرسيه واسخر يالا ولا يؤذوه يالا انزهما غني وهو علي الاسد دمير يريد دمير يريد تور مام يالا لا موتاك فاربي نيران فرسكو تبري فين تور جلف داي فين لو كوموم بيدنا القران Euh, euh, euh, turu lislaam am asaxeer laaw laaw ci alxuraan ñaari junne la ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk <coughs> takkaraar na ko ci yàlla takkaraar na ci turam woowu ne deux lu tax nag <coughs> amul wenn tur bu feeñ ci alxuraan lim bi day noonu du kenn du benn yonent <coughs> moo di ku moom sa yëf sa tur jëf ci lu bari am du ku sa tur jur ci lu bari sa tur jëf ci lu bari rajo Dakar bii ñuy tudd Senghor duñ ko tudd Ibrahima Sane day toll noonu parce que Ibrahima Sane moomu réew mi lépp loo maam sa tur bari lu mu ci jëf moo tax lim la ma lim la la ma saxee ci alxuraan boo xam ne lim bi di ko ci sax am na solo muy deux mille trois cent soixante am na benn aarifu billaay bu ko woy benn bayte rek dafa wax moom ne wa adadu ismillahi fi lqurani siinun wa zaadun suma siinaanii formule ak liggéeyam saab soixante la sin su trois cent la tooy mille la mooy wa adadu ismillah li mi turi yàlla fil quraan nga ne mu ne saab soixante siin trois siinaani ñaari sin yu tooy muy deux mille deux mille trois soixante waaye karaxaan في الدين قد تبين الرشد من الغاي ان ينا ايه لا بو خامني من سوخل ني لوكو من سوخل ايه قتال يكون من سوخل ايه ايه ايه خيخ موكو من سوخل ينا ديدت ايه بدلو ني من سوخل محكمة لا ايه محكمة موي بني من سوخل واي آه، دفع ام ينت نمولاو لا يكرها اماتو الفرصة جيخنا فرصة جيخنا في الدين تدوك في الاسلام اماتو li tax amatul mooy mbir mi dafa amoon ku ko réere te ñu bëgg mu jaruñu ñu forcé ko léegi nag réeretul xatta ba yeneen leer na nañ ruusu du yoonu njub min al xay ci yoonu réer ak ruus du l'islam من الخي كفر ليجي ليرنا نان فمن يكفر وأنتنا بالتعوت تجام خرم ويؤمن مدقل billahi yalla ak ku mu mën a doon na la woon dafa xadi tam sakka borom la ngaa mën a bil urwat ci buum al wusqa yu ñu xereñ ak rawam lan fi sama de de tëb sëriñ ciku ak dop laa ne ko ba biir àjjana wala borom bi sa miin dégg na seen wax alimul xam na seen jëf nee na daal benn waay bu ñuy wax أبرح شيء كلام صار لبوكو موم لا آي بي وات موم دا فا مون دو موم يو غور يو نصرا دي سي نيك فرانس دوك تي سي دين واي لولو جيك لا تي يوني نبي لو يوني يونت بي نك با مو فاي خالي يا نك دي وياسي ñew medina gisen bayne dafa def commerce bu diwlin ju bari diw mu daje ñoom xàmmee leen ne leen nag tey ngeen génn càncaay gi ngeen ne dugg ci islam par force ñu ànd dem ca nabi nabi fa xaala abuhuma ya rasulallah ayadxulu baab bisahi naara dinaa seetaan sama dangit tur yàpp di dugg safara waa na unzuru ilayhi ma di ko xool foog ñu tuub nabi waxam ñoom nag la alquran ñëw jibril ne laa ikraha fi diini xatta bayna rusd min al ghay فمن يكفر بالطاقوت ويؤمن بالله فقد استمسك بأروة الوثقى لا انفصام لها ولا وصف العليم loolu nag yàlla su fekkee yàlla dane foog ma am ñu ma yóbbu safara bu ci boole ne nañ forcé ñëpp ñu tuub kon kuy dem safara kenn du dem te خصنا وخمي ولا خط صدخت ولا كلمة سوى خط من ربك وخناكو آه، كون كاي سيدو رفين تأم نكو دينا جار دي فرسي فاي بيجان فرسي بمولير نانيناك نخمنا لي يوني جب لي مويوني كيفو دني سيطان نيجي دسناك نخ نمان جا أمين يدم سفا <clears throat> دونو شن برام واحنا ني ولو س... آه... آه... نقلك وغنزا واحنا كو رسول الله نكو نفس لو تاجي نك كود بو تي دينا لا سما واخ با دمنا توب بيكو ام ني لاك أنت تكره الناس أتى تكون مؤمنا واقعي أتى allahu yàlla waliyu lladina amanu moo méngoo responsabilité dimbale ñi gëm suñu gëm maa leen ma man yàlla bu société maay seen président bu julli maay seen irimaan maa leen méngoo maa leen di tourné maa leen di toog loo maay ci xol yi maay génne yuxrijuhum kooku nga xam ne moo giide jullit yi dana fexe ba dina leen génne min a zulumaati ci lënd mi kéefër watat leen jëman ñoom fan illa nooru ci leeri limaan lu noonu jullit yooyu man maa leen yor wala fii nag ay nga xam ne kafaroo wér nañu alquran ñooñu yoruma leen di am nañu leen yor nag awliyaw moo seen i président seen i gidd yàquutu xéram la xëy na nag yuxuruj seytaane la yuxrujuunahum da leen di génne mine noori ca leeri liimaan ila zulumaati jëm ci lëndëmi kéefër gaa yooyu ànd ak waa jooju mu di leen génne foofu di leen dugal fii azaabu naari ñooy gaa yi safara comme ñoom xaaju doon a way saxla ju fi ay ca jànn andi téere bi te toog fii tey dégg sama baat mbaa ñeneen ñi feleen na ngeen dégloondoo li yàlla nettali nabi te mu xewaan gannaawam ndax mu dolli seenu ngëm alam tara xamu la xamu gi yéemu nettali wuñu la tara dina firi ci arab gis dina firi xam léeg-léeg nga ne nit xanaa gisoo li ma def xanaa gisoo li ma def dafa mu ko defee fekk ko jublu woo ci ci gis mooy xanaa xamula li ma def voilà xanaa xamula lim ma def nga ne ko yow mi may yedd xanaa gisula lim ma def commencé di nettali alam tara xanaa nettali la ba nga gis ba nga xam ba dégg lan ñan illa la si saay-saay ba nga xam ne dafa bewoon ñu di ko wax namru namru kan xaana ko jur yaayam a ko ëmboon wax nañu ne àddina ba mu daj ñeenta ko musa moom moom Masriq ba Maghrib bokk la ko kenn baal na soob léegi ñeent la ko yàlla may. mas nañu moom àddina moomeel goo xam ne fa jant bi fenk ba fu muy sowe amuñu frontière ak kenn ñoo ko moom ak ñaari yéefar mas nañ ko moom ñaari jullit yi Suleymaan la woon amul woon frontière kenn Balkis rekk ko doon diir mbagg mujj na ko attaqué <clears throat> ba Dominique ak ku ñëw sul xor nañ ni di ngeen ko jàngi ca sóoratu njéng moom dong nga mosu def tour de monde fi dala bi fenk fi jant bi fenk bi fa muy soy ñooñu ñaar jullit la ñu wóor <clears throat> yàlla mayoon na leen ñu moom àddina yëpp ñaari yéefar mos na koo moom نمرود بي نيو اك بوختو نبرا نمرود نك كان حان موم لا نكو اسكاني ني موي بايام واي يايا مكو امب موم كو امب تي نجالو يوم تخوني مو جابندل بوبم غور غور غو امب تي دا دون باغ نغورو بايت كي دغ سانكو ndax amul dom تيت it gëwul woon مرام guy jur doom borom saraa bi ne na fumilat bihi ummuhu min azina xawfan كان أبوه عقيما وهو أول من لبس التاج المكلل مخنا من يدور موكو ديك سول كاو كاو بي ابراهيم مغي خيو غينا بي ني ساني ابراهيم سي سفر وبا نوب سي سفر نوب yàlla tàggatoo na ko àddina moom moo mën àddina tout tout dund bi yëpp moo ko moom maam Ibrahima am na jamono xiif metti ci moom mu dem di jëgg ci moom mu lànk mu indil ko wurus wu dul jeex mu lànk façon bu ne mu wax ko mu lànk Ibrahima ngi bàyyi kër gaa ngi xiif lool maam Ibrahima wëññeeku ba jub bi fekk benn banque la ñu ngi fi ci diggante bi mu ne daal ragal naa ak sama gileem yi sufuñu dara tiita soxna fee gune yi ci xiifaay naa ko farfe ci suuf suuf sii su ma demee ba ñu gis ko buñ tëddee ma tuuri ko mu indi gileem yi farfe ko suuf suuf suufu danqale ba agsi waaye bi yaay gi ne jóg leen doom seen papa ñëw na fab leen lekkat gaaw ñu ruy bi ñu sottee taag saako bu ñu tekk rek sunguf la soo xam ne dañ ko lay mu weex tàll fekk nag xale yi ne papa yi sama papa daal chef d'état bi nekk xaritam a ko yónni moo ko yónnee dund bi dund bi mu indi mooy leen déedéet man kay sama borom ma ko jox waaw moom moomu nag ak xamadeem ak réewam moo taxoon mu déwante Ibrahima ta adda mooy priente ci wax mu ne Ibrahima qul waaw alantara mu nabi la ñu yàlla yi waxal alantara xanaa xamu la xamu gi yéemu ilal la si jëm ca saay saay ba nga xam ne haza dàgge naag ibrahima sama xarit ba ñuy wax ibrahima ci lu ñu dàgge fi rabbihi ci saxu amuk yàlla lu ko ko xiir an ataaw ngir may na ko rek laaw yàlla mun ko nguur nguur rek tax na mu bew bay werante ibrahima yàlla am naag amul kañ la قال كلام بغا خمينا وخنا كو وخ ابراهيم ابراهيم كو وخ نمرود كان لك فوخ موي بمكوني من ربك كو سبر بني نوي او مول كو ربي سما بروم لو سي موي كان خمنا يوي موي دوندل ني دوند ويميتو موي ري نيدي اي نمرود كان يوم بنا ارامن خاله متوتو كو naka ana man mi uyi dinaa dundal wu mi du dama rey dundal rey rek moo di moo tax ngay oo ñi di leen di leen sonal naan kaay leen jàmm ko loolu mën naa ko loolu di sone palanton bi ñëw mu defar not yëfle ci procureur ñu daal dem ca prisonnier ba seet fa koo xam ne dañ ko condamné à mort ak kuñ condamné peine mu indi ñoom ñaar mu daal ne kii yoon ne rey nañ ko daggaleen baatam ñu dagg baatam mu daal ne ki ci des ñibbi mu dal di ñibbi mu ne Ibrahima naka mu rey naa dekkal na rey naa kii <laughs> rey naa kii mu ñibbi ana uhyi wa umettu intiqaalu min al izzati ila al janaak arab dañ koy bañ may weranteeg yow ba mu yàgg kuus bi ñuy werante ma bàyyi ko dem ci beneen kuus dañuy daal di wax ne dama lot maanaam danga ma jekkoo Ibrahima def na ko fii suma borom mooy ki nga xam ne mooy dundal di dekkal mu indi na ko mën naa kenn dekkal kenn xam na ci continuer ne ko reyin wi du noonu dekkal gi du noonu waaye boo xam ne day guddal wax mu daal def intiqaal mu daal def ne ñukk loola doxu indi weneen lay caw lay woo wala ko daane xool leen téere bi mu ne ko la nag Ibrahima ko bi tey nañ dem rabbi sama borom moom moo di ki nga xam ne comme yow ne nga da rëy dekkal nga sama borom fa inna allah yàlla mi may jaam yaatu mooy fenkal bi samsi ci jant bi minal mashriqi mu fenk ci fenkukaay bi yàlla daal mooy ki nga xam ne toujours mu indi jant bi mu génn fii يونا بودين نولم بولغي إيه؟ فات سنكل البيع شجنت من المخي بمجيني في ميسوي اقلو كان كان امنا دي سوى بولان دال ما يكينا خامنا ببوزة تيموني نيوخي سجنت بفي كم مرونا من اكتن نولم بس خيط ببوسبا نجيني ملوكو شكو تبينيو القرآن في بوئي تبالي قلب لفي كفر ساي ساي واو منوكو tont dal di jeex fugu ite lo fi kanara wallaahu borom billahi adi yaadi am def do do du du du jubal mukk alxawma pexem nit ab daalimiina ñu di way wéré ñu di way toñ aw wala bo gisul xatfu qissa bi qissati la fa fa fa fa fa fa xew xew nettali ko fabaat fanaa fabaat beneen xew-xew teg ko ci kaw bee ngi beneen ngi aw ka la si wala dañ la nettaliwul ko ñuy wax aziz am na ñuy tomb ñaari raay am ñuy wax xasayru di tomba genn gi oyofal genn gi bu ci ne nag baax na ndax bu ci ne lu xolu bu alxuraan indi am naa bàyyi bu baax buñ daan wax alaaji Moussa Ndour yàlla na ko yàlla yërëm commerce la waaye ku bëggoon xam-xam la bu Moussa di ne ci bitigam ku fa juux te mu xam ne xam nga dara bu la mënee dëkkoo dëkkoo la bu ko mënul dana la teral nooroog yow loo mën mu xam ko am góor guy jaay nag mu ñuy wax Papa Amath Cissé bokkoon ci nag saalum saalum yi yàgg ndax bari xam-xam lool waaye yàlla xiir bi ko def ñu daan def nag bu première traite jotee ba traite di baax ñu defar ay palmaan yu rafet ak seri tappi ak ak ak cawali di wër réew mi di ko jaay kilifa yi mu daan ñëw nga pro dafa jaay Papa Laaj Moussa nag am na benn xasida bu Alaaj Maalik defar bëggoon na sax ngeen jàng ka ñu di ko wax adaabul masjid teg gi ni kuy dugg jàkk noo fay tooge moom daf ko mokkaloon di ko jàng ni lawra am na ci benn baytu bu Seydi Alaaj Maalik wax ne wa innahu alal musawiri إكرام من صار مع تعذيري papa papa Mamadou Cissé boobu daan wër di jaay jàngal ko Moussa Ndour Moussa Ndour mokkal ko lool di ko woyant beneen sëriñ ñëw fa boo xam ne kilifa bu la waaye du tijaan góor gi nag di jàng ku mën a jàngale nag sëriñ boobale góor gi nag di jàng xasida bi ba ci baat bi mu ne ko ah xoolal li ngay jàng waaye gan googu góobul tijaan gi te mën a jàng ne ko xoolal li ngay jàng mu ne ko ah, maa ngi xool bi luñ ci bind wa innahu aqul alal muwaawiri ikraama man saara maa taawiri mu ne ko du noonu mu ne ah loolu lañ ma jàng mu ne ko la ko jàngal dafa juum taxsiiri amul ci alquran xasiiri amul asiisoo am génn raa gi dañ ko fàtte tomb fekk tanziri la jàng ta zi zi racine gu ñu tomb ak geneen gu ñu topp gu ñu tombul ñoom lu ñu xam racine gu ñu tomb ak ko muy assis assisu Abdul Aziz moo ak Abdul Aziz Inzuti moo la ko nag raa gi foog ñu tomb daal di ko dominer parce que moo ko dàq jàng indil ko atte atte euh, ñu mu ñu toll jàngal li ñu ko jàngaloon mu dal di sensé bi sëriñ bi ko jàngaloon dellu si ca déwén sa di jaay mu tëdd ci piriyaanam guddi di wayaat way bi ba agsi ci sensé tomb góor gi ne ko góor gi ko jàngaloon ne ko yaa nga yàq baat daa ah, mu ne ko déedéet yàqu ma ko mu ne ko ah <laughs> du ngeen bëgg a waaru xaaral ma si sëriñ bi la ko jàngaloon ti léegi yaa waroo mu ne ko tax siiri yàq la tax siitee baax góor gi ne ko ah alaji am na ku fi wudde mu ne ko waaw koo xam ne moo raw ci réew mi nettali baagal mu ne ko mënu la jàng mu ne daf ko ne taasiir yi amul ci alquran maanaam ay ndémanti la raagu yu tomb yaa raagu yu tomb muy firi tedd amul assis rek la alquran wax isabillahi ma fi samawaati ma fi laru wa assisul akim ba ngeen jàng waaye assis lu raagee na nga amul tomb amul daf musaal buur ne ko góor gi ne musaal buur kere jàngal xamul alquran soo demee nekk na jàng inaa fataxnaa inaa arsalnaaka saa'idan lu ci tegu wa bashiran lu ci tegu wa nasiran lu ci tegu li tu'minu billahi lu ci tegu wa tu'azzi waaw kan xam nga waxul la tuxassisu wa tuxazziruhu la wax wa taajiru la wax waxu wa taajiru kon aziru am na wa tuaziruhu waxu wa tuazizuhu wa tuaziruhu raa googu la mu door a delluwaat ci cosaan la di jàngalañ te jàngaloo xasaru bii am na ñu koy wax noonu tafqiir ko xasaf tomb gi ci ñaareel gi am ñu koy wax xasiisu jaamu yàlla bu baax la woon moom itam ci jamonoom am bés buxtu nasaraa bi nga xamee ne toj na baytul maqadis yàq la fa nekkoon yëpp daaneel taax ya meññeent ma bokk na yuréet mu jaar fa nag moom waa ju baax jooju ndeysaan wër dëkk bi dëkk bi na xeram mu yeew mbaamam nelaw fekk ba mu yor benn pañ daf ci tuuti rafet boole koog France suñu nal pour di ci naan mu nelaw fa am ko la fii xanaa nettali wuñ la waa nga xam ne marra traversé woon na ala qaryatin ci capital bu yëf baytul maqaddas war mbaamam yor butéelam yor pañeem waaye yëtu booba jamono dëkk ba xaariyatu mooy daanu ji tax ala wurusiha ànd ak lañ ci téegaloon téeg téeg moo di garab gu meññ ci suuf di meññ ci kaw muy raseñ yoobu ñu ràbb ràbb ràbb lal ko muy def loolu mooy garabu urus mu nga daanu ànd ak ya nga xam ne dañ ko mbaaraloon xaala mu ñàkk lu muy wax moom borom mbaam mi ne moo année yu yi naka lay mën a dekkali حاسه دك بي لاو يالا بعد ما تها جنا بيغا خمين مابنا دي نك دك دي نك لك وخلت فأما دوري كو شفافة لاو يالا نياتات مئات أمي كبير أب سما بانسو مو بك بك لكم يو خالة نين لاي كنو كم لو ديست لو في سخ خالة موني خلات نانا دال أنا في يوما أو بعد يوم انصر ولا دمي زورني خالة يالا نك لا ديستا am nga fi muy at amin téeméeri at xoolal fansur xoolal ila taamika jëm ci figg bi nga yoroon wasara bi ka ak nal bi nga naloon ci rafet yi ci eh, hmm, sorance bi xool ko soo ko xoolee lam yetazal na soppeekuwul ci caf ko foroxul nëbul woon sur boo noppee nga xool nag ilaahi maarike mbaam mi nga waroon mu xool ko fekk mu dee dafi yàq mu ne ko li naj dekkal gi ak lii def nañ ko aayatan muy kéemaan goo xamee ne mën naa dekkali naa si nit ñi woon sociétan ila taami ila isaami jëm ca yax